sama mbokk séeréer bi waaw Bachir Diomaye fay waaw sama mbokku Casamance bi Ousmane Sonko waaw ñoom la yàlla dogal ñu nekk tey ci kanamu réew mi kon nag li ñuy def rekk mooy ñaanal leen yàlla yàlla tette leen ba ñu mën a tegaat réew mi ci fiñ ko war a teg te Sénégal rek yàlla ruus mag ñi fi tëdd ba may leen jàmm may leen sutura may leen tawfiq incha allah loolu rek moo nekkoon kàddu yi